nii la def ba jeexal tàkk dundam suuf ba mu koy jeexal ñu calculé ko tolloog allahu di 66. Alxaaji Ibrahima Sakho man damay jël benn aaya alxuraan rek waxtaane ko ci Alxaaji Ibrahima Sakho aaya boobu boo ko jàngee rek xam kan mooy Alxaaji Ibrahima Sakho ban aaya boo jàngee inna Ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yaku min al musrikina shakiran li anhumihi tabaahu wa hadaahu ila siratin mustaqim ba ay bi jeex di nga xam kan mooy alxaj ibrahima saaxo ndax turandoom boobu di yonte yàlla ibrahima yàlla tudd na ko 69 fois la ko yàlla tudd ci alxuraan te li mu ko tudd yëpp ay vertu la ay jikko la te jikko yooyu yëpp mi ngi ci alxaj ibrahima saaxo moo tax ma ni alxaj ibrahima saaxo kaana imaman fil xayri taa i an xaadi an lillaahi moom kenn la woon rek ci jëf-jëf yu baax léppam rek yiw la woon jaamu yàlla jàmm gu sell la woon boo xam ni lislaam rek moo ko ñoroon daan wéetal boromam tas bi habi bi ma ko bëggee def 1970 bi mu ci laata wax benn baat daf ci wax sëñ Abdou Aziz sëñ Abdou rafet lu ko lool bég ca lool kontaan lool ne ko nag dama lay jox ndigal wëral Sénégal bépp kilifa diina bu fi nekk waxtaan caak moom mu def ci ñaan te mu teew ca sëñ Abdoulaye moo fekki julli gi sëñ Abdoulaye def ca lu kenn mësula def ci teraanga yebal délégation booba Serigne Sam Ndula mu ngi fi moom daan yebal jox ko yu bari mu dem canaba gisee sëñ Ibrahima Seck borom ba dem jaamal ga nga xam ne mooy sunu cosaan ndax boo demee wanaar tey ca bopp jumaay wanaar ñu ngi fa suul tafsir jarg tafsir jarga saaxo moo jur alaaji liman saaxo moo jëkk firi alquran ci saalum daan ko wax nag boroom jalaal ndax tafsiru jalaal bi mu daan firi taxoon ñu ko wax borom jalaal ngir dégg gu mu ko dégg donc alaaji bu saaxo léppam daf ko doon ci ay baay ak i maam waaye daf ko yokk nag yokk taxawaay ba yokk dayo ba yokk sag ba alaaji ibrahima saaxo ñi ko meññi mooy góor gi Elimane Sakho góor gi Elimane Sakho di doom ci Jarga Sakho Jarga Sakho dafa dëkkoon dëkk bu ñuy wax Maabo bayee ko fa dem wanaar yor fa daara alxuraan fa la gaañoo fa lañ ko denc El Hadj waajuram wu jigéen tudd Fatima Njaay ñu gën koo xamee ci soxna nguy Sigi Njaay Alaaji Ibrahima Sakho mu ngi gane àdduna le 20 décembre 1911 ca këri kooku ca Rufisque Tëngéej ci waaye juram jigéen dafa amoon benn kër jënd benn kër jox ko haddiya waajuramu góor góor gi Eliman Sakho góor gi Eliman Sakho qui est décédé en 1948 ca Ngaparu defoon fa daara di jàngale. ñu xam ne léegi-léegi xale yi dañ leen di préparé dafa daara dafa jàngale bi El Hadj Ibrahima Sakho àdduna en 1911 le 20 décembre. waajur wu góor moo ko dalal jàng yóbbu ko jaamal ndax waay góor gi limaan saaxu yaayam di taalix Fatim Dramé ak awaxat Dramé ki nga xam ne moo jur borom jaamal ñoo bokk benn baay muy El Hadj Abdoulaye Cissé bu jaamal góor gi yóbbu ko jaamal mu jàngi fa booba borom jaamal mu ngi dund moo ko alquran waaye war a ñëw def service militaire c'était à l'époque mu ñëw bi mu paree ci service militaire bi delluwaat jàmmal diggante moom ak këru diine yi dafa rataxoon lool bu dee Touba Serigne Mouhamad Fadel Mbacké daf ko jàppoon comme xaritam fonkoon ko lool Serigne Abdoul Ahad Mbacké bi mu ñëwee tamit wax nañ ma ne màggal bu jublu jublu siwaan chaque année El Hadj Ibrahima Sakho day xotti ci mbubu bàyyi laa di mu daan sol yu rafet ñëw bu dëgër dem jox ko sëriñ Abdou Ahad Mbacké sëriñ Saaleex sëriñ Abdul Xaadir ñooñu ñëpp rawatina aussi sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma dañu amoon ay diggante yu ratax yu dëgër ak góor gi Ibrahima Sakho boo ñëwee ci tijaan yi. sëñ Abdou da baax noonu la meloon ak góor gi Ibrahima Sakho ak mboolem ñi nga xam ne ñooy waa woon am fu ñu ko tegoon ndax ca xam-xam ba xam nga ne Alaaji Ibrahima Sakho bokk na ci ñi gën a siiwal téere bu Alaaji Malick bind muy xilaas dahab téere boobule moom daan gàmmoo daan wax ne sax man eh, téere bi ci laay amee sama dépense sama dépense bu kër Ibrahima Sakho nag wax dëgg yàlla ku bëgg a wax ci moom te xam ko piir boo moytuwul di nga juum ndax doo xam fooy tàmbalee doo xam fooy àggale ndax daanaka nag wax dëgg yàlla ka zahri fii tarafin wal badri fii sharafin wal bahri fii karamin wa dahri fii imami dafa mel ni bu fekk fleur ci taar boo bëggee misaal fleur yi dinga sonn ndax di lim xeetu fleur yu baree baree bare bari te itam nag bu génnee rek nga xam ne kii mooy fleuru alhaji ibrahima sax kon que fii tarafin wall badri fii sharafin dafa mel ni weer macha allahu ci teddange ndax masul taxaw man li ma fàttaliku nekk xale di ànd ak moom à l'âge de seize ans quinze ans may toog ci suuf nit ñi toog bu ñu toogee bu ma toog bu ñu amee place toog bu ma amul toog ñu toog la ma ci suuf ba ma am vingt ans dix huit ans commencé di way yëpp yëpp yëpp amul fenn fu Ibou Sakho ma sa jànge ma fàttaliku ñu am lu ñuy diingate jànge ya mbaa lu ñuy coow bind na ay téere bàyyi fi bind na téere boo xam ne mu ngi tudd euh, lumière dans les ténèbres pèlerinage de la Mecque def ko traduit en français olofal ko bind ko lampub lëndëmu haj ci ko olof di sa làmmiñ bind na téere boo xam ne booba defe naa sax yi mu njëkk bind ci la bokk ndax booba jamono ci jamonoy Senghor lañ doon wax affaire matrimoniale ak part pak yooyu moom mu bind benn téere boo xam ne mu ngi ko tëddee tazkiratan li ulul albab wa tabsiratan wa zikra li kulli abdin munibin la mu ca def lépp nag mooy mbirum miraas waaw dafa bari nag miraas mooy gennaalu xam-xam bind na téere boo xam ne mu ngi ko tuddee recommandation comment agir avec nos morts bind ko ci francais ki ko doon traduire en français mi ngi tuddoon Omar Maroun waaw bind na même xilaasu saab yi ci njëkk a njëkk a bind la ko bind waaye ku rafetoon loxo la waaye mu ne xeeb naa sama bind jox ko ku ñu wax Aline Badara Dieng ca coxo mu bind ko. wax ci El Hadj Ibou mooy wax ci lislaam wax ci El Hadj mooy wax ci tarixa Cheikh na Tijani. wax ci Alaaji bu Saaxo mooy wax ci kër Seydi Hadji ndax foo ci làmb wane na fa ay mérite ay référence yoo xam ne yi bu ñuy tànn mu bokk ci tànneef ga Alaaji bu Saaxo bala ñoo ñëw ci sama xarit sama soppee sëñ Habib damay wax ne war nañoo gëstu ci démarche scientifique pour seet li mu taxawe woon ndax gàmm gi mu njëkk a gàmm ci Ngexoox bi koy gàmm juróom fukki at ak juróom-ñett la am 18 ans ba keroog bi muy nelaw kon dina rafet ni ñi xam ne dafa juddu rek fi nit ñi toll di fo ak wut banneex mu jox bopp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak booy juróom ba El Hadj Elimane ak sëriñam ba Euh, doomu suñu maam El Hadj Elimane Sakho dafa représenté benn symbol bu rëy ci Sénégal d'abord El Hadj Elimane ci boppam dégg naa benn bés ñu wax ne li mu échangé moog El Hadj Malick Sy ci ay correspondance yoo xam ne daf ko daan poser toujours ay questions ci wàllu charia ci wàllu histoire ci wàllu l'islam ak ci wàllu Sénégal ak société bi mat na ñaari téeméeri lettre ak juróom ak ñeent 264 correspondance xam nga loolu dafa doon benn patrimoine bu la kenn mënul wax ndax question ya mu doon posé ak tonk du ko maam El Hadj Malick Sy daan tontu mu di ko jël di ko denc di ko denc di ko denc ba mu doon loo xam ne ëllëg njabootam mun nañ ci sukkandiku pour gën a xootal seen xam-xam gën a yaatal seen connaissance de l'islam de la pensée de El Hadj Malick mais aussi gën a jox l'islam benn compréhension boo xam ne dina mun a jëriñ encore davantage nit ñi dafa doon loo xam ne loolu kenn mënu ko xayma te El Hadj Ibou foofu la jàngee jàng fa njàngir moo xam ne du njàngu caaxaan njàng mag yi ñu daan jàng mu xóot lay doon njàng mu yaatoo yaatu lay doon njàng moo xam ne dafay toucher tous les domaines du savoir de sorte que moom ci boppam yàlla daf ko defoon mu doon benn savant benn érudit. El Hadj Ibrahima Sakho li mu yor daaraam. di tafsir di jàngale di conférence nekk imam ratib terewul terewul lépp lu util islam rek def ko soxaloon mu ngi njëkk dem Makka en 1945 booba temps waajuram mu ngi dund góor gi man Saaxu ci ay moyen la demee Makka 1961 mu dellu Makka bi mu dem mu yóbbu ale rakam bu ñuy wax tafsir saaxu xam naa moom ngeen gën a miin ndax ñoo bokk benn baay 1961 boobu muy faatu en 1994 entretien yi ma def gëstu yi ma def ñu ne ma chaque année dina dem Makka soit aji wala omra te buy dem day yóbbuwaale ay nit mu amoon nag benn méthode bu mu daan yóbbu ay nit ki mag ci soxna yi ki mag ci doom yi ki mag ci sët yi ki mag ci taalibe yi même ay jànq yi daan liggéey ci kër gi des fois mu jës yóbbu leen makka samay gëstu wanna ma ni lu ëpp juróom-ñetti fukki nit El Hadj Ibrahima Sakho yóbbu na leen makka. dafa bokk ci mag ñi nga xam ne dañu teel yee xale yi jàng tubaab ci wàllu listam wàllu tarixa bi ak wàllu àddina ñun ñii ba ñuy nekk université wala lu ko xaw a jiitu ci lañ ko xam fii ci biir ndakaaru penc ma ñuy wax cëddeem nekk avenue Émile Badiane en rue Sandiniéry prolongé mu fay firi alxuraan koor gu jot ñu toog ci keppaaram jóge fa muy gàmmu fii ci avenue Lamine Guèye ñu wax pàkku butéel ñu koy seetaan suñu ay waajur duñ ci xiir kon dañu nekk ndaw ànd ak suñu morom yu bari nag sopp ko lool mu ñuy bàyyi xel du caaginu xam ne war di bàyyi xel xale yi koy déglu li tax may wax loolu mooy dafay teel dugal suñu xel ci njàngaleem diine bëggante ci àddina ak naka lañ koy toppee bu doon ci tubaab dañuy teel a wax na jàngalekat la pédagogue la ci biir loolu nag ñuy màgg tubaarakàll ak suñu ay moroom góor gi nekk fi di yaatal ba nga xam ne li nga xam ne Sénégal jëkk nañ ko jàpp ci moom dafa bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo jëkk firi ci tubaab ay njàngaleem ci xel mu rafet am na ci ay téere yu mu bind jëmale ci koor am yu mu bind jëmale ci aj màkk ñu traduire ko ci français ñu ñu ciy gëstu. salaatu tasbih moo ko initié depuis 1970 fële ca Ngekox benn jour férié lay tombeel woo nit ñi ñu dajee fa jaamu yàlla jàng alxuraan ñaan yendoo ko lu siiw la depuis 1970 ba léegi muy am. salaatu tasbih bi. am na téere yu bari yu ko génne waaye baaxu ba Ibrahima Sakho ci la yàlla dogale mu tàmbali ko ba ñu bari di ko def. boo ko bëggee def nag ni mu gën a yombe te gën a jàppandal mooy ci kaw quinze ci suuf diis nan boo kàbbaree def sa ba kàbbar dugga ci julli def sa faatiha ak say ixlaas boo àggal rek defa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar quinze fois ca kaw nga kàbbaree ba def sa fàtte boo rukoonee defaat subhaana rabbiyal azimi wa bi amdihi ñetti yoon wala juróom wala juróom-ñaar nga wax ne subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar quinze fois loolu du trente nga ne sami allahu liman hamidahu rabbana wa laka alhamdu bu la neexee nga àgg adada ma alima ma alima bu la neexee nga yem foofu ne subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar quinze loolu du quarante cinq nga sot si suuf si jóot def sa tasbihat subhaana rabbiyal a'la moo xam ñaata def nag subhaanallah walhamdulillah wala ilaha wala akbar dix wax nañ ma ni si entretien bi mu def dañuy recensé lu ëpp fanweeri jàkk yoo xam ne moo ko tabax ci pexeem ci alalam waaye yemul foofule am na benn jamono mu doon tabax jàkka ca Arafat ca Tëngéej tabax bi liggéey bi yéex a yàgg dafa mujj jaay këram ca Dakar ca boor Liberté 6 ci Sicap bi jaay ko àggale ko jàkka ja en 1976 xam tax daf daan wax ne ñun dañu am suñu banque fii ci àdduna bi suñuy bànk ay compte bancaire yàlla am na bànkam ca àlaxira dañoo war a jéem a ubbi sunu compte bancaire ca àlaxira di ko alimenté fii ci àdduna dana wax ne sama lëndëm maayu bàmmeel laa gën a ragal ci sama lëndëm maayu néeg li mu yóbbu màkk bare na bu dee gàmmu moo ko commencé d'après man 1937 keroog ba muy gàmmu këri ko papaam Alaaji Ilimaan Saaxo mu ngi toog sëg wetam ñu jàng ba jàng yi jeex 1938 loo teg bu mbuur jàngal ñu ne su may bokk kat ragal naa bu déwee ne daañ ma soxla muy waajooku lépp teg yeeg képp ku bëgg yonent bi rek soppana Alaaji yi bu ngir taxawaayam maa ngi noonu joo xam ne ji bépp adduna yi tukki turam da daan def commerce. demaan Makka jënd fa or bu ñëwee Sénégal jëm cee yaxanal. bu demaan Maroc jënd fa ji nga bone yi mbaxana marocain yi jënd ci bu ñëwee Sénégal jëm ce yaxanal yemu ci liggéey na même ci transport en commun ama oto yu daw loolu lépp ay leçons yu doon joxe la wane ne diine ji du rekk julli. allahu akbar asalaamaaleykum waaye jàng la jaamu yàlla la liggéey la. bu saaxo amoon na xam-xam alxuraan xam-xam boo xam ne man gisuma ba fii ñu koy waxee nii ko mën a amee ni tubaab di wax surfer dafa doon surfer ci alxuraan dafay commencer ci d'un bout à l'autre foo ko ci neex mu wax foo ko ci neex mu tibblu ko ci neex mu gis boobu xam-xam bu rafet kenn ko. dafa nekkoon koo xam ne ku social la woon ku tabe. waaye tamit ku simple wàccee boppam li ñuy wax humble tawaadon daawul tëju boo ko soxlaa fekk ko këram amul intermédiaire am na góor gi Alxaaji Gaye ànd ak moom depuis 1958 moo ma wax ci benn entretien ne ma mën naa waat ne man Alxaaji Gaye xamuma ku gën a ragal yàlla Alxaaji Ibrahima Sakho xamuma ku ëpp fit alaaji Ibrahima Sakho xamuma ku gën a tabe alaaji Ibrahima Sakho di dellusi di sant yàlla di ko santale njabootu alxaaj Ibrahima Sakho ci reportage bu yaatu bu mag bu fonk bi nga xam ne moom lañ doon def ci moom i nuru lu ñuy fàttaliku ndax ay jëfam sax mën naa am duñ ko fàtte waaye di ko tudd léeg-léeg dafay dal di jur tuyaaba ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp ku sos sunna te taxawal ka ku ci taxawaat mbaa mu tibb ci dina doon loo xam ne li yiw woo di nga ci am ba ilaa yawmal xiyaamati ñu dellu nag di sant sama borom mi nga xam ne moo wax ci alquran inna alladina amanu wa amilu salihaati ulaaika hum xayrul bariyati jazaauhum inda rabbihim jannaat Haji Ibrahima daan na man wax na ma ne ma soo ma fekkoon xaaju guddi ci téere yi nga xam ne lii may wax dama ko jàng kon moo tax bi ñuy def témoignage ci moom li ma ci gën a touché mooy li ëpp ci ñu doon wax xam lañ doon wax ci moom xam-xam doonoon branche bu foor a foora a foor mu doonoon yitteem itam ndeysaan am na benn xaritu moroomam la lébu la mas naa wax ne alaaji bu saaxo ma ne ko mu ne bu bindee ak miim ne la baala fokk nga nangu ndax doo xam fu mu jaaree ba ne miim la yàlla moo ko joxoon xam-xam boobu joxoon na ko xam-xamu jàngale itam pédagogie bu gàtt-gàtt boo xam ne ci lu gàtt la lay jàngale nga dox fi xam li mu wax te du te du ci sonn doo ci sonn ma jox ci benn misaal rek am na bés kilifa gu mag faatu fii ci Dakar mag ñi ñëw di teeru di xaar néew bi ñëw ci armeel yi xaar ba xaw a yàgg ba toogin wa metti am ñu toog ci kaw armeel yi waaye bi mu dugg see ci jàngaleem daf ne asalaamaaleykum bi yëkkati baatam ci kaw ñëpp ne maaleykum salaam def attention ci moom mu ne bi may dugg ci armeel yi day sama borom am na lu ma yónni ci mbooloo mi ñëpp ne tekk mu ne waaye waxaale woon ne ne bu ma ko wax ku toog ñëpp jóg taxaw mu ne toog ci bàmmeel baaxul façon njàngaleem noonu la daan gàtte noonu la daan xóote noonu la daan leere ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci boobu nag la duggee ci salaatu tasbiha bi nga xam ne moom la ñuy waajal kon jëmm yi nga xam ne ñoo jël seen xalaat ak seen waxtaan ak seen temps wax la ñu xam ci alxaaji Ibrahima Sakho wala as lëf ca la ñu xam ca moom te lépp rafet ñoo ñu ngi leen di sant ak fonkoon ni kilifaam ak ormaloon njabootam ak rusuloon ay taalibeem ak leen joxoon cër bu yàlla nangu ko ko jox sa moroom ak oyofoon ku ragaloon daraja la